ji mawlidu nabi yonante bu tedd bi nga xam ne ni moom moo gën ci mbindeef ndax bu dul woon moom du ñu fi nekk ñu ñëwit seet si ko ngir mu ñaanal ñu ñaanal ñu lu jëm ci wàllu coalition bi nga xam ne nii ah def nañu ko depuis quelques mois mu nekk coalition bi nga xam ne nii dañu dem ba xam ne opposition bi suñu boolewul nekk benn li ñu bëgg duñ ko mën a am ndax sénégalais yi dund bi ñuy dund métti na sénégalais yi seeni liberte amatuñu ko ba tax na situation bu tolloo foofu ñi nga xam ne nii ñooy yëngatu ci politique raw na ci opposition bi dañu war a ànd nekk benn boole seeni xalaat boole seen doole boole seen i nit ngir taxaw taxawaay boo xamante ne nii dana dimbali askan wi dana permetre askan wi ñu retrouver seen dignité dana permettre askan wi ñu dund dignement donc loolu moo tax ñu mettre en place cette coalition tuddee ko Yewwi Askan Wi ndax it comme ni ma ko waxee sànq askan wi dañ leen naa yeew yeewaay boo xam ne nii ci ndóol yeewaay boo xam ne ni ci mitit donc ñun ñi nga xam ne nii nag ñun ñooy yëngu ci wàllu boobu wàllu politique baax na ñu taxaw ngir loolu jóge fi te it boole ci dañuy dem ci ay élections muy élection locale bu ñu fa jógee dem ci élection législative li tax booloo bi ñu booloo am solo dañoo war a booloo ba mu feeñ ci élection yi nga xam ne nii ci la ñu jëm muy locale ndax yéen ñëpp xam ngeen ne kii nga xam ne nii moo jiite réew mi li muy mbébét wax na ko laxatuwu ci dara moo di dafa bëgg troisième mandat loolu nag nga xamante ne nii bëgg-bëggam la ñun am na taxawaay boo xam ne nii bu ñu ko taxawee loolu du mën a nekk parce que loolu bu nekkee dana indi fitna ci askan wi dana indi ay tolof tolof dana indi loo xam ne nii duñu ko mën a gérer loolu moo tax danañu def tout ñu nit ba loolu du am ndax askan wi jàmm lañu bëgg ci jàmm la ñu war a mën a nekk moo tax it nag ñu ñëwoon tey gis sëriñ mu niiru ziyaar ko sakku ci moom ñaan ba nga xam ne nii loolu nga xam ne nii mbébét nañ ko bëgg nañ ko yàlla sutural ñu ñu yegg ci ak jàmm ba am ca ndam ba nga xam ne nii kii nga xam ne nii moo jiite réew mi mbébét yooyu mu am du mën a nekk askan wi dinañu nekk ci jàmm retrouver seen dignité loolu daal moo ne woon tànk ñu fi indi tey ñu ngi leen di remercier jërëjëf